بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulilah ala xaal euh, mbokk yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel kàddu gi suñu mantikaa nekk ci àddina bi ñu ngi nii ñëpp di leen ziar di leen ñaanal jàmm euh, di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq defal ko mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi lay déglu euh, di baalu àq ñëpp di leen baalu àq ci lépp loo xam ne mas nañ koo wax mu nekk njuumte ñu xam ne matadik doomu aadama la waaye lépp loo xam ne mës nañ ko waxta mu nekk loo xam ne daa gaañ kenn eh, ñu ngi koy sàkku njéggal di ko sàkku njéggal suñu moroom ñun tamit di wax ne baal nañu ak ñëpp yàlla defal ñu tawfiq eh, ala kulli xaalin tey nag dañoo fa yéene dikk ci beneen tomb ci tomb yi nga xam dañ koy baaxoo di waxtaane eh, comme que tomb yi dafa laaj baxsu mooy gëstu moo tax tey ñu jël tomb gént tukki gént tukki nag gént la ci gént yoo xam ne ala kulli xaalin eh, doo xëy soo bëggoon te nit laaju la ko tukki nag maanaa ngi buñ ko waxee ñu bari jàpp nañ ne mooy génn Sénégal te loolu wala dem Europe xëy na ñàkk xam ak woyof gis-gis eh, nit ki waxtu boo déplacé woo dëkk bi nga cosaanoo jëm beneen dëkk boo xam ne juddoo woo fa amoo fa kër amoo fa soxna jàppal ni foofu musaafir nga fa mooy danga faa tukki kon la la fa yóbbu su ma tey dangay delluwaat jëm fa nga jamaatoon loolu lañuy wax ñu ne diw dafa tukki kon bu nee tukki rek du caagi ne biti réew nga dem Europe déedéet ñàkk xam-xam la bi ci desaat xëy na mondialisation ak organisation yi ni demee moo tax ñenn occidentaux yi daal di xaaj àddina bi def ay frontières fii laa yem fii laa tàmbali waaye bu doon ci li yàlla bindee àddina amutoon frontière fu waaye neex bëgg a dem mën nga faa dem bi ci desaat mooy nekk nga ci dëkk la nga bëgg mënu fa am nga jógee fa dem beneen dëkk ci misaal Ndakaar fii ñu ba dañ fee tukki si ndax ñëpp dañ fay ñëw pour wut si ku am da ngay delluwaat ci cosaan loolu moo nekkoon cosaan li waaye ñi yëpp dañoo mujjee lang fàtte seen dëkk cosaan yi ba jàpp ne fii lañ dëkk waaye bépp dëkk boo xam ne da nga faa dem pour wuti soo amee da ngaa war a delluwaat dëkk cosaan nag raaf na ndax lu ko raafal mooy ñoo xam ne dañoo ñëw wutoon ñëwoon di wut ci far mujjee ñëw muyte mujj dëkk fi ni wutee mujj fàtte seen ay dëkk cosaan di di jànkonteeg ay jafe-jafe yu bëtti ci réew mi te ñoo ko teg seen bopp ni ki Europe tamit noonu la amee ñenn ñu fa nekk ñoo xam dem nañ jiwut amuñ muntu ñoo ñibbisi ñu toog lan am ñoom sa passe amuñu ko moo boo dégg ñu tukki Europe rek dafa neex neex na gaa nag waaye du ñëpp la neex am na ñu fa nekk ñoo xam ne bu démb doon tey duñ dem ndax tukki du ñëpp la jik kon moo tax ñu fas yéenee jël waxtaan lan mooy tukki ba noppi waxtaan ci gént tukki ak njëriñ yi nga xam ne ñu ngi ci Eh, kon yalla sun mom daf ñu waxon ne sa bu ngeen nekké ci barab di fa tek ay jafé jafé jugu leen fa ngeen dem ci benen barab barab bo am ne fa mëna am jamm pour man fa am li ngeen bëgg kon lool mo wara nit ki di déplacer wu pour dem barab sangam kon bul dégg ne nangam rek nga tax nga juk nit boy juk da nga wara am ay firnde ngay gis ci amerique ñu naan bo démé nak naan nangam na ñaka xam eh, moo koy waral. waaye ala kulli xaalin gént tukki lu am solo ci wàllu génn doomu aadama waxtu bu nekkee ci barab eh, mu fay jànkuwanteeg ay jafe-jafe digal nañ ko wax nañ ko ni ko jugeel foofa dem foo xam ne nga fa mën a amee jàmm kon ma waral ñenn ñi jugee Guinée ñëw Sénégal ñenn ñi jugee senegal dem Europe kon loolu du nekk loo xam ne ak ñàkk fayda la waaye jàpp nga ni li nga bëgg yaa ngi ko ma a amee barab sàngam. kon it dara nekku ci moo tax ñu fas yéene ci dikk pour leeral ci moo dañuy wax ni ar ruya min allahi wal xulum min asheytaani yéen bi aleyhi salaam moo ko wax na ngeen bàyyi xel ne gént lu baax lu tegu ci dëgg mu ngi bàyyi ko ci yàlla subaanu wa taala waaye képp koo xam ne gént nga lu safaanu mu ngi bàyyi ko ci seytaane moo dañuy wax ni gént yu mel noonu soo ko géntee lu lay tiit wala lay ragal euh, demal nga jàpp ba sell julli ñaar rakk ñaan yàlla mosal la seytaane te seytaane dafa bokk ci li muy jëfa li muy gaañee yenn doomi aadama yi ci wàllu gént moo tax ñu bëri ñu ngi gént yenn xeetu gént yi def ko ndam def ko pouvoir te fekk ne xamul na seytaane moo la xas ci loolu ndax ku xàmmewul yàlla xàmmewoo seytaane yu bëri doo ci am ay leeral moo tax loolu it ñenn ñi def leen di faral di gaar ba boo leen ko firlee sax dañuy xam ne liñ bëggoon dégg dégguñu ko kon loolu li am la gént ñetti parti la am loo xam ne nag sam xel képp la nekk surtout maa tukki nag ci la gën a bëri day gis ko am daa déposé wàllu tukki di xaar ngéej kay di génn ay géntam yëpp damaa gént tukki damaa gént tukki lu ci nag saa boo ko defee néewaana nga déposé di génn tukki lu baree baree bari di ci bàyyi xel kayit yi génn normal ñu ëpp saa bu ñu ko defee déception la ñu am déception mooy mbir moo nga doon seen doo ci jot sa yaakaar day tas ci wàllu tukki boobu xamaa beneen moo tax ñu bëri loolu da leen di damaa gént ñu woo ma damaa gént ambassade bi damaa gént tukki damaa génn nang te jamono jooju fekk nga nekk ci procédure tukki ku koy def laa la wax lu ci ëpp bu doon ñaar fukk la jàppal ne quinze personnes yi wala dix-sept personnes yi su jamono jooju bu dee dañoo déposé da yëgal duñ leen may ay benn benn ñoo koy ñoo koy def yàlla dogal seen biir sotti loolu tamit lu ma di bàyyi xel la kon xaddisu si mooy loo xam ne dafa nekk ci yow nga di ko dund di ko xalaat loolu soo tëddee foofu mu ñëw ci yow partie bépp solu ci gerte rek lu tàmbalee quatre heures du matin jàpp cinq heures ba six heures waxtu boobu loo fa gént luñ la wan lay doon te luy ñëw lay doon mën na bañ a dikkee nag ni nga ko géntee ci anam boobu waaye mën na ñëw ci yeneen i façon yoo xam da nga xam ne lii nga géntul kat lii lañ la bëggoon a misaal ndax loolu day faral di am ala kulli kon xaaju bu njëkk mooy booy doog a tëdd boobu moom lu ci bëri da ngay xalaat mooy mooy ñëw rek xaaj bi ci toppaat mooy bi nga xam ne day mel na lu neex te fekk na lu dëgg loolu day am ci gédd yenn saa yi gént daal mu mel lu naqari mu tiit ci lool maanaam man na bañ a nekk loo xam day naqari eh, bi de desaan njuumte yi am yenn saa yi da gis ko naan la gént waroo ko nettali loolu lu ci bëri ay njuumte da ci am njuumte yi daa am loo la yàlla misaal nga war a xam ban tànk ngay taxawee ñu ne la jaru ngay xam ban tànk ngay taxawee làmbatu la ba taxaw loolu boo ko defee mën ngaa dal ci kàmb te boo dalee ci kàmb yaa gaañ sa bopp. bul lor waaye bul lore laa dara darara wala diraara li yéen di wax mooy bul lor kenn waaye bul loraate kon saa soo génteel la jaaxal gisal ku la doy nga nga dem laaj ko ko mu leeral la ko loolu lu mat di bàyyi xel baax a baax kon géntu ki gént la ci ci gént yi gént yu am solo la nag gént yi am solo ci wàllu gént la lu ci ëpp nag danay doon lu baax danay doon njariñ moo tax koo xam ne nag dangay lijjanti place ci misal ngay xaar lu aju ci place bo xam danga fay bëgg dugg nga gënt tukki ba àgg ah, bu dee place la de ala kulli hal yegan danga ci jot te bo ci jotee di nga am lu foo ko sa jot wali lu ma di bay xel la benen bi ci topat bu dee koo nak da ngay dangay xaar lu aju ci walu sey moy dañ lay xol lopp sey ngay xol ñaani seen digënté baax na wala baaxul ah, nga gënt tukki dem ba àgg ci gént nga réer wa ilaa defaat ba dikkaat fi nga ñëwoon loolu moo lay xamal ni bu dee sëy la ala kulli xaalin am na njàlbeen waaye mujj dana bari ay xat-xat wala ay torof-torof yoo xam ne mën na cee am moo ci anam bu mel noonu moom nekkut loo xam ne gën na eh, ba tey bokk na ci mbir yi gént tukki dem ba aéroport avion bi bàyyi la loolu ci guddi yuñ tool noonu bu doon looy yaakaar yégal ni moom doo ci gaaw jot bu dee looy dugg tamit yégal ni boo ci mënee dellu gannaaw mën nga cee dellu gannaaw ndax ay gént la yoo xam ne euh, saa boo ko géntee rek am na lu taxaw sa kanam loo xam ni bu waroon a neex tamit mën naa bañ a neexee noonu day faral di am ci gént bu baax tamit euh, beneen bi ñu toppaat wàllu gént yi dañ koy leeral di ko leerlaat firi gént yi dañ koy fayeeku nekkul lu ñu firi gént gratuit loolu it pour nit ñi bàyyi ci xel baax ñi nga xam dañuy gis sa numéro rek dem yónnee la fukki vocal yoo xam ne benn bu ne cinq minutes lay tege ba noppitaan daal dimbale ma ci ngir yàlla man ko yow bu yëpp ñëpp defeen yow boo liggéey doo dootuma firi gént ndax vocal bu nekk nga bëgg koo déglu ci cinq minutes bëgg koo tontuwaat nga bugg koo boole lépp lépp boo ko bëggee boole mot quarante minutes loolu it du xel nag nit duñ la may lépp nga jël lépp donte yenn saa nit mën na la envoyé vocal nga firi ko may ko ko dañ koy faral def waaye mënuñ koo defal ñëpp nag. yenn saa yi nit dina bokkal naa la ngir yàlla dañuy maye dañuy firi gént yenn saa yi di ko may ay nit waaye mënuñoo may ñëpp loolu mënta nekk ndax àdduna doxewut noonu donte yàlla mi yor àdduna bi di ko doxal donte xam nañu ñëpp dañoo soxla woo xaalis ku ne koo ci gis am na bëgg na milliard te yàlla xam na ne ajoo nañ ko de teew dañoo toog di seetaan day bëgg ñu dang dang ba sonn ba am milliard mën ko téel suñu bopp kon lool it lu mat di bàyyi xel sagam yàlla mi yor lépp moo mën a am ñum jox am ñum xañ waxuma nag doomu aadama boo xam ne day jéem rek ci li ko yàlla dénk muy def kéem tolluwaay kattanam kon képp ku envoyé te vocal na nga bàyyi xel baax doon dañuy firi gént di may waaye du ñëpp lañ mën a may ay benn benn nga mën a may kon firi gént yi am nay sart sart yi mooy loolu bi ci desaat ku bëgg seet wala listixaar ala kulli xaal mën ngaa jël numéro yi bu la neexee woote bu la neexee envoyé vocal waaye ni nga yëgee ni firi gént dafa am fay seet listixaar dafa am fay ay yeneen yi nekk ci gannaawam yéen yi ci topp ya ndax loolu mooy li nga xam ne liggéey bi loolu moo koy doxal beneen bi ci toppaat koo xam ne nag dafa feebar nga gént muy tukki tukki bu metti loolu it waxtu bu amee tamit mën ngaa yëg ne aji feebar ji ci tawat ji pour mu jóge ci danga xaw a jafe waaye laa mën na cee jaare wàññeeku moo tax ku feebar moom saa soo génte muy tukki rek mën naa nekk tukki boo xam ne du gën ci moom ala kulli xaali euh, beneen bi ci toppaat koo xam ne nag danga am sa xarit boo xam ne dafa tukki nekk ci misaal mu nekk biti réew nga nekk Sénégal nga gënt and ak mom wala nga dem fekk biti rew loolu sa su amé baxna ben ak déggo la bi zaatu yokuté la ci yow mi gënt gënt bi zaatu bu doon la jafé la lool yëgal ni bala yag yalla dina la yombal ay mbir yo xamné da nekkon kumpa ci yow motax ci anam bu ñal non baxna na ba tey it sa mbokk mo xam dafa faatu nga gënt mu tukki loolu waxtu bu amé ci jamono joj fekk nga koy ñaanal mën ngaa yëg ne ñaan ya nga koy ñaanal yàlla mën na koo soppi jëlee ko fi mu nekkoon jafe-jafe yóbbu ko fu baax moo eh, li ci amal solo mooy dee leen ñaanal way faatu yi dee leen ñaanal way faatu yi lu leen waaye mën a defal lu dul ñaan defaloo leen dara wante li ngeen defal mën na baax waaye di leen ñaanal di leen ñaanal njéggal allahuma iqfir laha warhamha yàlla jéggalal yàlla yërëmal lu ko gën a simple amul yàlla jéggalal yàlla yërëmal loolu kay gën naa yomb yàlla jéggalal diw sàngam yàlla yërëmal diw sàngam soo ko mënu ci arang wax ko ci wolof nga la waaye dee leen ñaanal ñu faatu aji woon na ay ñaan de wallaahi laadim ñu ci ëpp seen ay mbokk ban faatoo ca saransa bam jàllee ñeent fukki guddi lañ paree la di leen ñaanal ñu ci ay lëndëm ay guddi gu bëccëg lu dul am mbooloo jaar fenn ay armeel ñaanal leen ñu doo ko jariñ ca loolu but loolu seen ay mbokk fàtte nañ leen ñaanatu leen kon ku waay faatu gu am mbokkum faatu yàlla jéggalal yàlla yërëmal diw sàngam loolu yomb na leen ko wax comme que mënoo laas mënoo faatiha yàlla jéggalal yàlla yërëmal loolu yomb na kon da leen fàttaliku ñi nga xam dañoo faatu bi ci desaat gént tukki dugg ci bato baax na nga yëg ne gént nga tukki ci dugg ci bato tukki dem ba àgg fi nga jëm loolu it njariñ la loo xam ne dana la dikkal mu jóge ci ku mag wala kilifa wala ngay am yëkkatiku goo xam ne mën naa dem ba jaaxal la yow ba tey gént dugg ci gaal di dem ci tukki baax na saa soo géntee nekk ci gaal di tukki cim ndox ba àgg fi nga jëm baax na li bon mooy di tukki àggoo saa boo ko defee bu dee place la place ba ngay wut jamono jooju boo ci duggee mën nga dem ba am ci ay jafe bu dee sëy la am nañ jàll benn waaye amatul mujj bu dee liggéey la liggéey la boo xam ne mën nga cee jànkonteeg ay jafe-jafe ba tey gént tukki dugg ci gaal ba lab mujjee faat loolu it baaxut loolu ay jafe-jafe yu métti yoo xam ne mën nga cee dugg te doo ci gaaw a génn alaa kulli xaalim ba tey génte tukki dugg avion ba ci ak avion bi tàkk loolu saa sol amee dinga dugg ci mbir moo xam ne di nga dem ba ci biir am coow wala ay jafe-jafe wala ay mbir yoo xam ni mën na la cee gàtt du la gën a laakul yàlla fàtte woon nañ joxe numéro bi sax mën ngeen a jël numéro 78 443 75 27 ñi nga xam ne dañoo aajowoo lu aju ci wàll firi gént wala ñi nga xam ne dañoo bëgg ñu defal leen li saxaar wala seet laakul yàlla it loolu it mën nañu wote ci numéro 78 443 75 27 ba tey eh, gént di tukki yokkute lay tegtale képp ko xam ne gént nga tukki ba àgg seentul yokkute boo xam di ko fa am gént tukki nag ci misaal nga dama départ Sénégal jëm Allemagne ci gént gi nga yeewu fekk yaa ngi yeewu Angleterre loolu saa su amee lu ëpp ci sa wàllu mbir bopp luy ñëw daf lay bett mooy bu dee place la bu dee looy sàkku luy ëpp buy ñëw daf lay bet waaye di nekkuloo loo séentu loolu tamit lu am solo lay doon ba it gént di waajal tukki te mujjoo dem loolu it saa su amee nit koo xam ne ay mbiram pour mu jug jot ci dara day jafe kon nit la koo xam ne tout le temps ay gàllankoor da koy faral di gaar ci mbir yu bari yu muy dugg bi ci desaat saa soo géntee di tukki yëg ne dangaa bàyyi dara sa kër nga dem di ko jëli fekk la la waroon yóbbu dem moo xam bato wala avion loolu it yaakaar ci tas lay tegtale ci jamono jooju bu dee looy séentu pour nga jot ci jafe bu dem xaalis la wala bu dee looy lijjanti ci jamono jooju boo géntee lu mel noonu mën nga cee dellu gannaaw baax xam ne mën nga cee dugg ba ci biir am ay gàllankoor wala ay jafe-jafe yoo xam ne séentu woo ko woon alaa kulli xaalin ba tey koo xam ne dangaa gént tukki waaye dangaa yëg ne naaw gént di naa du tukki baax na yokkute la de wala looy yootu loo xam ne yàlla dana la ko yombal nga jot ci te ci am benn jafe-jafe moom it ci gént yi nga xam ne dafa gën lay e, tegtale e, ba tey bokk na ci gént tukki ba ci yàgg nga ñëwaat ci misaal nga yëg na seen mbokk sànga dafa tukki woon ñu yëg na ñëwaat na loolu it bu fekkente ne nit la koo xam ne ma nga biti réew pour mu ñëwaat dana jafe dana jafe lool lool sax ba tey it koo xam ne tout le temps ay géntam yëpp biti réew lay doon ci misaal moom bu na rek géntam yëpp day tegtale moom mu ngi jëm biti réew te jamono jooju doxut ci yoonu tukki doxut ci dara day jëkkoy gént loolu moo koy xamal ne euh, dana toll foo xam ne ay mbiram dana ubbeeku wala dana am ay yokkute ci anam yoo xam ne séentuwu ko woon loolu ci anam boobu moom it lu baax lay doon ci aji gént ji Eh, beneen bi ci toppaat tamit ala kulli bokk na ci gént tukki dem ñaan ci gént nga dem ambassade ñaan ñu may la visa ngay waajal pour tukki loolu saa su amee ci gént nit ki mën naa am yaakaar ci période boobu noonu ak dundam lu bari mën na cee soppeeku wala ci ak dundam jamono jooju lépp lu ko jaaxaloon yàlla mën na ko koo yombal ba mu am ci lu fooxo njortam kon gént tukki lu ci ëpp nag yokkute la aaja ju faju la wala ñaan gu nangu bu fekkee nag ñaar moo bu dee koo xam ne dangay ñaanal nit ci dara yow mi koy ñaanal nga gént tukki lool it mbir ma lum jafe-jafe-jafe yëgal ni yàlla mën na ko sottal beneen bi ci toppaat wa ilaa ngay duggal nit ki xalwa nga jékki-jékki nekk ci avion di dem loolu it moo lay xamal ni mbir moom muy séntu lum jafe-jafe-jafe yëgal ni yàlla dana ko jàppandal li garaaw kay mooy ngay ñaanal nit ci aajo di tukki def accident loolu it moo lay xamal ne bu dee lu muy dugg bu mën na ci am échec bu dee lu muy séentu mën na dem ba ci biir am ci ay tolof tolof wala ay gàllankoor yoo xam ne séentuwu ko woon ba tey tukki di dugg oto baax na yokkute la aaja ju faju la tukki di dugg avion baax na ak yëkkati ak yëkkatiku lay tegtale aaja ju faju la mbégte la naqar la naqar juy jeex lay tegtale maanaam lépp loo xam ne yàlla suñu borom mën na la ko yombalal mën nga ko am ci anam boo xam ne day gën ci yow moo tax ci anam boobu moo gën a ëpp yaakaar moo gën a nekk loo xam ne nit ki saa bu ci nekkee rek yàlla mën na ko sottal kon ala kulli xaal liñ gént tukki lu baax la day tegtal aajo ju faju kon mbokk yi mën ngeen a jël numéro yi 78 443 75 27. ñi nga xam dañuy bëgg leen defal firi gént ak ñi nga xam dañoo bëgg leen defal seet wala li saxaar eh, numéro yi moo nekk noonu incha allah rabbi yàlla yàlla defal ñu tawfiix bu baax defal ko mboolem ñi nga ñi nga xam ne dañuy déglu kàddu bi ak mboolem ñi nga xam ne dañuy partage vidéo yi ak ñi nga xam ne dañuy abonné wu ci compte bi ndax dañuy wax ni liggéey bi fu mën a àgg rek ñiy déglu ak ñiy partage ci lañ bokk loolu it ñu ngi leen ci sant bu baax ci leen ci ñaalal yàlla yàlla defal leen tawfiix ba li ñuy wax tamit mu nekk njariñ ci ñu koy wax waaye nekk njariñ tamit ñu koy déglu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa